bu ñëw fii tey rek xool permanence bi xam ne jigéen ñi joxante nañ loxo te noonu la ñu joxantee loxo ba référendum bi passé wii gagné ñu joxante ko loxo ba joxaat président Macky deuxième mandat sans deuxième tour jigéenu zone noor yëpp nekk nañ benn képp ki xalaat ne nekk ñu benn nag tey dañ lay xamal ne ñun ñëpp joxante nañ loxo ñin ñi gën a tuuti dinañ topp ñi mag ñi magit topp ñi leen féete papa ñun ñëpp ñu nekk benn liggéey parce que président Macky rek la ñuy liggéeyal moom rek ñu ñor fi mu ne keneen ñoruñu parce que benn ndënd fii samp muy ndënd président Macky kon ñu ngi sant bu baax. leen ñi fi nekkoon di xëccoo mu nekkoon euh, Awa Sarr nekk kenn ci ay jigéenu euh, Pape Souleye Dia. ak tamit nga xam ne Maguette Diop la nekk kenn ci nga xam ne bokk ci kii jigéen tey yéen ngeen nekk ci benn parti bokk benn leader bu Macky Sall naka nga tey ñoom ni ñu ne tekk jiital la yow jiitu ñoom ñu nekk si ginnaaw. waaw xanaa du ma ne sax mbégte la parce que du ma ko damoo du sama am fulla ñu jox ma ko du seen ñàkk fulla bëgg a defar moo tax ñoom ñaar ñëpp lañu jàppoon ñu bàyyi ko awa suma grande sœur la màgget doom la ci man ba ñu toogee awa dane sama rakk duma buuxanteeg moom màgget aussi na ma assu sama tànta nga tey boo ma wowoon ci néeg na ma dangaa bëgg dama lay jox kon du ñu yegg si fii ñoom ñëpp ñu àndandoo jël ko jox ma ko mais jigéen ñëpp la ñu ko jox du Astou Gueye Ndiaye rek jigéen ñëpp ay àndandoo xàccandoo dóorandoo ñu am ndam incha allah. ban message ngay lancé jigéenu zone nord bu ñu la jiitalee sa waa message bi ma leen di lancé mooy euh, man Astou Gueye Ndiaye peut-être ku ko gis dafa ne ku diis la mais dama oyof ne xob coordination bi responsable des femmes bi du ma ci yëkkati dara te àndandoo wuñu yëkkateendoo ko xàccandoo doorandoo maa ngi woo jigéen ñëpp nag ñu ñëw ñu ànd les femmes catholiques. ñeneen ak ñeneen sëy na bu njegeen ñëpp maa ngi leen di woo jigéen ñi nga xam ne aussi ñoo nekk ci yenn sensibilité yi muy waa ko Thierno Sall Omar Diop Lamine Ndiaye Siré euh, Dia ñëpp ñu ngi ñoo maa ngi leen di woo di leen tàllal loxo tàllal loxo jigéen ñëpp ñu ñëw àndandoo nekk benn ndax man Astou Gueye Ndiaye mënuma dara te mbooloo mooy doole kon dañ leen àndandoo ñu ñëpp joxante loxo ndax li ñu bëgg ak li ñu yéene président mu sotti incha allah te gëm naa ni wii dina jëf fii Thiès. di sant euh, ñi nga xamante ni ñoo fi teew ñëpp di wax ni jigéenu zone nord dañu taxaw takku euh, derrière leur coordonnateur di monsieur Lamine Ndiaye incha allah daanu ko def nañ ko daan defee. Euh, moy jigen ñi fep fa nga xamantene ni la ak ak euh, mbotay dañu war fa taxaw waxtaan ak ñom rek dañ daan fa tek suñu tank def proximité ba au soir du 8 mars euh, le 8 va triompher massivement inshallah ñu jox ko le président Macky Sall. sant rek ndax man lama wara wax yëpp sama rek wax nañ ko ba paré motax man amatuma leen luma ci wax du dëgg ndax man ligéyal Macky Sall do nga ma ñor wa bëgg wi bi la fay ñu dugg ci dëkk bi waxtaan ak xalé ñu génn Macky Sall am fi ndam. kon naan tey mën nañ jàpp ni jigéenu zone nord yëpp booloon nañ pour yii bi emporté fii ci Thiès waaw ñëpp booloon nañu ñëpp booloon nañu nekk benn pour yii bi nekk benn te ñaan nañ ko sama woote ma fi ardi te incha dina ko toutes les femmes de l'affaire se sont réunies autour de l'essentiel il y a plus de sensibilité au niveau de, de euh, des femmes au niveau départemental euh, à Thiès. Donc, une fois de plus, on réitère notre engagement auprès du président de la République pour que le 8 au soir du 20 mars, 2016 Bien sûr, parce que nous allons battre campagne au niveau de, bah, la campagne de proximité et euh, vous montrer à toute la population sénégalaise que toutes les querelles se sont tues et l'essentiel va se, bah, on va montrer que l'essentiel est autour du président de la République. Maintenant, vous savez bel et bien qu'on a l'habitude de dire que la femme est au début, au milieu, et à la fin de tout développement. Et c'est l'occasion, encore une fois, pour toutes les femmes de la Terre de, euh, de, montrer cet engagement et se mobiliser autour de l'essentiel qui est de euh, remporter, le oui massivement au soir du 20 mars, Inch'Allah.